jërë ngeen jëf waa ji ñu taal keroog ca Kaolack ay mbiram a xëy di jax-jaxi ci yéene kay bokk ci ñoom l'observateur mi xëy dellu si ak ñun ci li xew ubbil yéene bi benn waaye bu ñu naan CF moo faatu ca Kaolack ñu ne ab góor jigéen lañu ami nit yu bàyyi ba ñu suul ko ci armeel ya ca lew naña seen ñu dem sulli ko diri ko ci mbedd mi sotti ko essence taal ko moom waa ji l'observateur ne nañu ca Kaolack fa la faatoo mbokk yi gàddu ko yóbbu Touba bëggoon ne leen du ngeen ko fi suul dàq leen mbokk ya gàdduwaat mu dëkkoon waa quartier ba ne leen du ca dal xeexoo tàmbali ci diggante mbokki néew ba ak waa quartier ba ci ëllëg sa di àjjuma ji ñu bàyyi ba ay boori trois heures du matin ñu raaxalu guddi gi jël néew waa ji ñu ne ab góor jigéen la dem suul ko ci armeel yi na ñaseen ya askan wa yëg ko ci la ñu bàyyi ñoom it ba guddi ñu wut seen lampi torche dugg ci armeel wër bàmmeel ba ba gis ko sulli ko diri ko génne ko armeel yi ko suur soi nañu waajoo waaye bu ñu ne ab góor jigéen la moo faatu ci Kaolack ñu suul ko ci armée yi na ña seen am ay nit yu sulli ko taal ko libération nañu waaji Cheikh Fall la tudd ñu gënoon koo xam ci turu Naar fanweeri at la amoon le ko tiim ko di waaye ko fecc moom mi ñu ne ab góor jigéen la tirbine mi ngi ñuy xamal ne yaayam ju naqaru xor la amee bi mu yëgee li xew ba moom ca la jaaree faatu procureur Kaolack bi defub communiqué di ñaawlu li xew ba xamle ne ñi ko def danañ leen topp enquête ca ba xam leen la war ca ñoom yoon def ko turbine mi ngi laaj ndax procureur bu Kaolack bi loolee mu bëgg a def ndax dina ci dem ba jeex euh, coowal góor jigéen loolee xew ca Kaolack moo waral point actu gis ne ministre intérieur bu bees bi di Sidiki Kaba ak ministre de la justice bu bees bi di maître Aïssata Tall Sall ni ñu tàmbalee seddul coow lu rëy mi ngi leen di xaar mi ngi ci seen kanam ñu war ko lijjanti ñu bàyyi coow loolee te dem lijjanti yi coow la woon ca poorum Dakar yëral li quotidien ngi ñuy xamal li ñu ne waa port dañuy amal ab grève tey ji ci altine ji loolee collectif gi ëmb les acteurs du port weddi nañu ko ci na nañu ca la ñu ngir seet nu ñu def ba ak déggoo am ci wàllu ligne maritime bi ci diggante DP World ak collectif gi njiital port autonome de Dakar di Mountaga Sy bi nee nañu moom jaare na ca fàttali collectif bi seen ay responsabilité ci ni ñu war principe yi tënk fonctionnement porum Dakar sur 24 waaye ñu respecter délai bi ñu maye ngir wàllu enlèvement conteneur yi jëwrin gi ñu dénk microfinance économie sociale ak solidaire di Ziguinchor xaalis bu toll ci 692 moom la fa baaxee nit ne financement ña jote Les Échos nañu toll nañu ci 6936 yu yëngu ci secteur d'activité yu bari te wuute source nañu keroog samedi la woon xew-xew bi FONAMIF di Fonds national de la microfinance moo ko organisé woon enveloppe bu toll ci 385 millions fa génne 335 yi jëm ci wàllu subvention ak matériel ngir acteur développement yi ca Ziguinchor ci biir yéenekaay bi ministre Victorine a firndeel taxawaayu gouvernement de combat politique ak l'observateur mi xëy séq waxtaan wu yaatu ak borom grand parti di Alaaji Mali Gàkku gàkku borom coalition gàkku 2024 ci jamono jooju poy actu mi ngi ñuy wax ne ci diwanu Tambacounda am na fa lu toll ci ñeen fukki élu ak ñaar yu fa booloo defub résolution ba signé ko ay responsable Benno Bokk Yaakaar lañu seen yéene nee nañu mooy jàppale Amadou Ba ngir mu gàñe élection présidentielle 2024 waaye laata ñu cay yegg waxtaan ak moom mu di xibaar bopp journal bi mi ngi ko nangoo ci président conseil départemental ba di Mamadou Kassé ci jano bu mu doon def taskatu xibaar yi xibaar beneen ci journal Tribune coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ca Kaolack di Mouhamed Ndiaye Rahma yéenekaay bi ne nañu waa Benno booloo nañu jox ko bopp nee nañu ko wéy ngir seen candidat bi di Amadou Ba am ndam lu rëy ci présidentielle yi mu amee woon nag ci ndaje muñ ko doon jébale ay parrainage mu jaare ca moom Mouhamed Ndiaye Rahma sàkku ci gaay bi ñu dakkal xiiroo be ŋaayo bi te àndandoo di Ahmed Youssouf Ben Diallo